yàgg na yàggul mu jël li simple bi nag téye ko avec en manière mosuñu gis mu def violence moom Reug Reug mais ku ne xam na ne Sa Thiès diiran bi muy bëre ba léegi moo xam mu am ndam wala mu ñàkk ndam kenn musul gis mu def violence kon Sa Thiès du def violence Reug Reug du def violence kon ñaari mbëri ñoom seen i supporters nañ xool ci ñaari mbëri ñëw ci fair play ñu bëre ci ngor ak ci jom ak ci fulla ak fayda que loo rek lañ am lu ñuy wax ci bés boobu noonu naa ci yow mais mais doom day ñu ngi lay mbay Mbaye Babacar maa ngi lay dolli. voyage bi dem nga ci jàmm ñëw ci jàmm. waa ñu ngi sant Serigne Touba gu wér. ñi nga am jàmm gu wér. Mbaye Babacar tant que lamb expert lamb. mais mais sama jaar. en tant que expert lamb suba ñu jëm ci bis bu mag diggante Reug Reug ak Sa Thiès. Euh, Reug Reug Sa Thiès que le maire gagne avant tout may nuyu gars yi nekk diaspora bi ah di nuyu waa diaspora bi yëpp fépp waaye mën di nekk rek ñu ngi lay ziar di la bëggee parce que ñoom ñëpp ñu ngi werante ci site internet yi moo xam Instagram yi moo xam TikTok yi benn benn mbër la ñuy werante muy Sa Thiès Reug te Sa ku ko xam xam ko ci fulla ak fayda musul def violence Reug Reug ku ko xam xam ko ci fulla ak fayda musul dem violence kon ñaari mbër yooyu na seen supporters yi ci ñaari mbër ñu ñëw fii suba ci kàttanu yàlla en tout ma ci defaat benn ci côté arbitrage bu ñu waxee Sa Thiès pare nga Reug Reug pare nga nañ leen bàyyi ñu liir combat yi quoi parce que bu ñu leen waxee pare nga rek bon moins de cinq secondes dix secondes ñu commencé jël avertissement loolu da leen di jaxase nañ leen bàyyi ñu liir ko minimum un minute deux minutes parce que combat boobu noonu war na mën a dem ba cinq ba six minutes parce que ñaari xale yi lépp lu ñu ñàkkoon ci làmb ci saison yi passé Sa Thiès ak Reug Reug war nañu ko a jox Mbaye Babacar di nuyu nag suma benn frère muy grand ngi lay la ziar ngay dund bés baa ngi nii ñu ngi la fiy xaar 11 heures viendra nga wàcc si fi ci kàttanu yàlla. mais ñoom ñaar seen état de forme noo leen mujjee gisee seen open press. waaw man gis naa ne Reug diis naa diis goo xamante ne bi peut-être ay mbokkam ñoo ko digal dañuy bañ Sa Thiès ko parce que nag ku xam Sa xam na ne gaaw na gaawaay boo xamante ni mën na la manœuvrer comme ni mu defoon nees boo xoolee nees dafa diisoon mais bi mu jàppee ci ngembul dafa rapidité boobu woyof googu mu woyof est-ce que bu ko Reug jàppee dina ko arranger wala du ko arranger en tout cas daal combat boobu noonu ñu ngi ciy ñaan jël bi leer nañ ñaari mbër yi kenn bañ bon ñëw ñu jàppale ci côté mystique. dina gaaw. waaw non xalaat naa ne combat bi du combat buy gaaw parce que Sa Thiès du ñëw asaaloo ko Reug du ñëw asaaloo ko. mais Sa Thiès mënul xaar. waaw dañuy wax ne ndox du bàyyi yoonam mais Mbaye Babacar mbir dafay toll foo xam ne da ngay tey xool adversaire bi mu andi parce que adversaire bu ki nekk rek da nga koy étiqueté xool lu mu mëne nga ñëw liir bés bi parce que Sa Thiès li ko war a topp suba dafa bëri bàyyil xel ne ki dem moom mbaay Balla Gaye 2 dafa daanu fii doon frère léegi nag loolu noonu Sa Thiès dina ko bëri waareel ma wax la beneen affaire Balla Gaye 2 ak Issa Pouye dañoo bëri def 1 léegi 2-1 bi fii la war a leere suba ci kàttanu yàlla dégguma waxaatal loolu mu leer ma ne Balla Gaye 2 ak Issa Pouye dañoo bëri ñoom ñaar def 1-1 caare ak Guédiawaye ñëwaat kii Balla gay 2 moo koy indi kii Issa Pouye moo koy indi 2 bi daal fii la war a leere ci kàttanu yàlla incha allahu rabi suba ci kattanu yàlla ci heure bii ah bis bi dina neex. ku ci nekk lan nga war a moytu ci biir bërëb bi. waaw man su ma doon Sa Thiès damay moytu rëg-rëg jàppanteeg moom ci lu yàgg parce que rëg-rëg nag bërëm yëpp ku ko xam ne xam ne ne benn benn la soo xoolee bi muy daan fii Gris 2 da koy yoot di ko karkaral ba dajale ko après lu ca xew da koo daan te nag champion la daan muy Gris mais Sa Thiès it jóge ci benn combat booy nag daan ko mu jóge ci jël Moussa Ndoye bi mu jëlee dañ ne victoire la kon Sa Thiès moom it na moytu rëg-rëg teel koo jàpp rëg nag invité première cinq minutes yi wala première cinq secondes yi alir bi Sa ñëwee mbëkk mi muy mbëkkee parce que Sa nag doomu ñooy la kenn du ko ñaanal yàlla mu réer da koy ñaanal mu gudd fan parce que melax la daal kon Sa Thiès ak Reug Reug Sa na moytu Reug Reug teel koo jàpp di ko dajale waaye Reug Reug it na moytu alir bi Sa war a ñëwee waa amateurs yi ñu leen di wax ne leen ñu ñëw soutenir si suñu frère suñu xarit suñu lépp muy Makana di doolee ñaanal père Gaston borom may ko kàttan may may ko Luc Nicolas et may ko bépp boo xamante ne promoteur nga surtout parce que promoteur dafa métti jël sa xaalis dugal ko ci làmb da ngay bëgg mbir ba pare bay Mbaye Babacar soo ko jël sa xaalis dugal ko ci parce que ñoom dañu nekk ay amateur gis nañ ñoom seen xaalis dañ ko war a dugal fi promoteur bu gagné kenn waxul bu perte kenn waxul en tout cas ñu ngi leen di massaw di leen ñaanal jàmm di nuyu nag sama patron muy faalu Ndiaye waaw kooku suma xarit Ndiaye production sama xarit la sama nit damaa dàq te fayu ma samay droit ba ni ma voyagé. Fallou fayal sa fayal sama xarit bi ay droit. Oh, Fallou Ndiaye fay ma samay droit dàq nga ma fayoo ma samay droit fay ma samay droit Fallou Ndiaye mais maa ngi lay bëgg. mais Fallou borom baax la. gis na kooku nit gënu ko coow li bëri na xadar gi bëri na mais day bañ ku koy. wax tuuti jëf lu bëri. waxoo c'est que bu yàgg bu njaab yàggee gawar feeñ te wolof dañuy wax ne fas woo gis fasa ko jur waaye fas yi fi ñu rawantee ci naaru góor yi Fallou Ndiaye bi muy tëgg Pikine ay mbapat mbapat yi di toj kenn fekk ko ci Fallou Ndiaye bi muy tëgg Ngor di tuddee ay ay drapeau kenn fekk ko ci du sponsor du kenn kon Fallou Ndiaye tey bu demee ba toll fi mu toll mooy dafa ñafe laay fam moo tax nag coow li bëri mais kum xulool yaa ko tooñ nag. mais mais diaspora bi nu ngeen di dundee làmb foofu. ñoom làmb ji làmb ñoo ñuy wétali ci diaspora bi parce que gars boo déggee ñu ne combat taxaw na pendant 4 mois ba 5 mois chaque jour ñu ngi kiy werante gars yi ñoom Serigne Ndour ñoom Mbaye Toldo ñoom Toumani ah Alain Rens DKR bu fàq boobu gars yëpp mais soo limee da ngay juum kët su baagari maa ngi koy ziar gaa yëpp ñu ciy werante guddeeg bëccëg te nag attention ñu bokk teen ñooy laxasooy koj gis nga gis nga lu ñu werante ci Instagram yi waxante lu ne kenn ku ne yaa ngi ak seen ni nga moroom ñuy waxtaan kon gars yi nañu gën a góorgóorlu ci diaspora bi gën a te xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñun ñëpp ay xarit lañ ay doomi ndey lañ kontaan naa maa ngi lay gën a kontaan yàlla na sa jàmm yàgg sama xarit bu yàgg jaajëf Bamba ma soxna